am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show mbokk yi nag di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan tey ci alxames bi nga xam ne mooy ñeent ñu ànd ak yéen ci bégal leen ci li nga xam ne mooy Kouthia Show tey dina ci li nga xam ne nag moom mooy euh, programme bi Khalifa Wade mi yëkkati ay kaddu nekk responsable APR bu mag ca Sine Saloum euh, nekk chef de cabinet bu Baba Ndiaye fi nga xam ne mooy président conseil euh, bu régional départemental bu région bi nga xam ne moom mooy Kaolack nee na wax dëgg yàlla Sine Saloum yëpp Saloum yëpp dañuy delloo njukkal xam ne na ko mu nekk loo xam ne fierté la nationale waaye fierté bu région bu euh, Kaolack ndax moom nag wax dëgg euh, li muy tàmm di xool Kouthia bëri na ci liggéeyam bi nga xam ne euh, def na ko am na solo moo tax 24 heures chrono daal dina koy bind 24 heures di quotidien bu mag bi ak ki li nga xam ne nag mooy évidence moom tamit def na ci xët bu rëy tey ñu fas yéene jël ci loolu bu ñu jógee nag dem seeti ki nga xam ne moom mooy président Macky ci ñàkku yi El Hadj Diop tamit nee na président Macky Sall programme bi nga xam ne mooy vaccination bi ni ko tëralee est-ce baax na war a baaxul dana ci ñëw ki nekk ci réalisation bi suñu xarit la El Hadj Malick Ndiaye feggoog ki nga xam ne mooy ingénieur de son Daouda Gueye ñu am mbégte contentement ci Seyda Mariama Ndiaye mi nga xam ne nag benn jëma ñaari caméra di am mbégte contentement ci Jamil Ba Kara sécurité tonton Pierre ci yëre yeeg dem dikki maquilleuse bi ki nga 2021 2021. Abou Mouhamed pour man ñu ngi ci 2025 sax. ah bon Abou Mouhamed di la nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu àdduna wërngal këpp comme ni ma koy waxee saa su ne ginnaaw wax mu yegg sax nag yàlla la neex laataa ñuy door dañuy santaat julliwaat sën ma laaj ci sangu-sang yi moom Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ba tey naan jërëjëfati Serigne Touba ba tey ñu am mbégteeg bànneex jàkkaarloog téléspectateur Futurs Médias di leen présenté suñu gàmb yanj bi nga xam ne moo nekk ci table bi gis nga li nga xamante ne mooy gàmb gaamu madaar maman da ngaa feebar gis nga li nga xamante ne bii nii mooy gaamu madaar tarkal madaar lu oos lu gàkk lu tilim lu daan nee naa la moo ko tax a jóg daw leen gaaw ngeen jënd ji ko baax na ci kër yi ruq yeeg ruqaati booy raxas ndab nee la moo ci gën a gaaw ñor oto bëgg koo raxas ba mu set macha allah ba pare bàyyi la xet gu neex daw leen gaaw ngeen jënd ji li nga xamante ne bii mooy madaar ba tey yemul ma foofu li nga xamante ne bii mooy madaar gis nga pomp détergent bi mu ñu indil tuddee ko li nga xamante ne mooy jotol jotol nag nee naa la baax na trop ci kër yi néeg yi douche yi waañ allah fépp foo pomp rek lépp lu bokk ci microbe dootoo ko amati. jeex na tàkk ba tey yemul foofu bu fekkente ne da ngaa sonn dangay ngay ci ndox boo sangoo rek da ngay daal di féex moom li nga xamante ne bii mooy jotol bi bu fekkente ne da ngaa dagg bu fekkente boo commencé deret bi commencé génn rek def ko ci day daal di fermé wu sur le sang kon daw leen gaaw ngeen jënd ji li nga xamante ne bii nii mooy jotol détergent. gis nga li nga xamante ne bii mooy sama savon antibactérien laa ko tuddee boo xeesee boo ñuulee tey boo mun tuddee am mun nga ko sangoo bépp picc bu mu fekk sa yaram da koy dindi hydraté sa peau jox waa dind na lépp macha allah. hydraté ko bàyyi la ak peau bu doy waar moom li nga xamante ne bii nii mooy seen pompe daw leen gaaw ngeen jënd ji li nga xamante ne bii mooy seen savon Madaar. ba tey yemul foofu gis nga li nga xamante ne bii mooy sama gaamu bay bi met nee naa ko ba mu yëgsee la xel yi dal ni ko mag mu nee jël noonu la ko xale mu nee jël defaral nañu lait bi defar ñu vaseline bi dama koy conseiller mag xale ndaw ñëpp ñëpp dem leen jënd ji vaseline bi baax na trop ci li nga xamante ne bi mooy jamono seddaay bi ñu ne am na lait bi am na li nga xamante ne bi mooy vaseline bi am parfum bi am poudre bi am huile de massage bi am li nga xamante ne mooy tampon am li nga xamante ne bi mooy ay lingette kon euh, képp ku ci bëgg rek duggal gaaw ci marché yi baax na torop daw leen gaaw ngeen jënd ji ko te nee naa la li ci gën a neex mooy fépp foo fekk bu mag rek da nga fay di fekk li nga xamante ne bi gis nga sakos bi li ma ci gën a neex boo taxawee doone jaay jaay ma ñaar da nga ko naan ma li nga xamante ne mooy saagu ma daar mu jox la nga daal di yóbbaale ma daal di dugg ci sama transfert euh, d'argent bi gën a gaaw gën a wóor sa xaalis ay borom nee naa ko bu mu yëgsee la xel yi dal man dimbal jaboot laa ko tudde ndaxte bu fekkente li nga xamante ne bii mooy application sa téléphone da ngay daal ut li nga xamante xamante ne bii mooy carte bi ñu enregistré la ci euh, li nga xamante ne booy envoyé doo booy envoyé cinq mille francs yaa ngi fay fukki dërëm booy envoyé euh, kii di euh, mille francs yaa ngi fay li nga xamante ne bii nii mooy 1000 francs booy fay envoyé li nga xamante ne bii mooy 100 mooy mooy 1 million yaa ngi fay li nga xamante ne bii mooy ñaata. Ah, un million kay cent mille francs xam naa loolu waaw doo ma ci jàppale sax yow tamit nga seetaat ma. un million un million bu fekkee da nga koy envoyé yaa li nga xamante ne bii mooy dix mille francs kon daw leen gaaw ngeen utu ji li nga xamante ne bii nii mooy seen. sa xaalis yaay borom ak wéef ku ko amul dawal jënd ji ko ba dawal nga uti ju ko doo fay dara da ngay dem rek ñu enregistré la ko sa téléphone wala nga am li nga xamante ne bi mooy carte bi te li gën a neex mooy bépp facture boo boo koy fay doo fay da boo koy fay doo fay dara ci li nga xamante ne bi mooy wéef kon ku ko amul rek war nga ko mën a daal di ut téléchargé ko gaaw boo ko mënta téléchargé nga jël li nga xamante ne bi mooy carte bi ab Mohamed ma daal di bàyyi nga eggale waaye di jaajëfal bu baax a baax sama sponsor yu ji ndax peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbëgg yee boo leen bu mag bii di ree ba seeni bën di ñaq yàq grâce à sama sponsor yi staff bi kon dama leen di jaajëfal gis ngeen programme bi ni mu tëddee ak Abou Mohamed nee la bu kenn zappe mu daal di continuer woyal programme am ñu daal di yëngal gësam ba ci kanam mbokk yi am nañ mbégte ak contentement bu mag bu ñu sant yàlla suñu borom yi nga xam ne moo ñu sàkk julli ci Seydina Mohamed PSL sur lui ak njabootu yonte yàlla Yesu Christa borom xel mu sell ñuy gërëm nag sous l'égide et la bénédiction de tous les khalifes Pape Malick Sy bi nga xam ne moo yoroon kàddu kër ga yàlla na yàlla def mu xippee ci àjjana ya gën a kawe di ziar bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall waaye suñu xel yëpp day dem si suñu baay bi xam ne mooy Pape Mahi Niass di xalifa Medina Baye yàlla na yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram Serigne Mame Abdoulaye Thiaw xalif général euh, bu Laayeen yàlla na fan bu gudd ak wér gu Imam Cheikh Cissé ca Medina Baye moom tamit ñu koy ñaanal fan bu yëpp rawatina njabootu ah, Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass la war a Niass ñoom tamit ñu leen ñaanal fan nañ leen Serigne Abdourahmane Seck moom tamit Abdourahim Seck xalif bu Thiénaba ñu ngi koy ziar Thierno Bachir xalif Omar yéen di ak ja Cheikh Omar ziar nañ ko njabootu Serigne Mounirou Diegane xalif bu Serigne Amadou Baro Diegane ñu ngi koy ziar Chérif Khaya Aïdara ca Nimzat Serigne Mouhamed Lamine Ngom Capal njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass Serigne njabootu Serigne Mame Abdou Dramé xalif bu Ndande di ziar tamit Alaaji Modou Mame Cissé di ko ziar di xalif bu Jaamal yal na ko yal may fan bu gudd góor gëram sama baay ju baax ji Serigne Abo Mbacké ci ziar ak ci baatin ma koy ñaanal fan bu gudd ak wér gëram yàlla sàmm ko sàmm njabootam waaye tamit di ziar xaritam bi nga xam ne wëlëram la di jëwriñ Moustapha Sène yal na ko yàlla defal jàmm ak fan bu ak wér gu yaram Thierno Sama Sa Mora nekk ca Fouta yal na ko yàlla may fan bu ak wér gu yaram ziare ki nga xam ne mooy góor gi Samba Ndiaye représentant nga xam ne nag moom mooy ca imam fan bu ak wér gu yaram Serigne Cheikh Saliou Mbacké xalifu Serigne Saliou Mbacké ziar ko ca fan bu ak wér gu Thiam Thierno Bokar Alpha Ba ca war a fonde Thierno Modou Adama Gaye ca ñànk idi e alaaji Mouhamadou Gaye ca Mbour ca Fès Serigne Habib Gaye mu xaddamu sëñ Mansour Sy alaaji Ousmane Ndiaye Waliou Kamil Serigne Mama Sugu Waadaan ñu koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy sëñ Abdou Karim Mbacké Serigne Mama Mbeng di ko ak ki nga xam ne mooy Fari Mangane Modou Fleur ñu ngi koy ñunu ca kër nga xam ne fa euh, nekk ci ak wér-gu-yaram barkeel leen ci barke yonenti yàlla Yeesu Krista borom xel mu sell mi ñuy nuyu tamit maître Fatima Fall responsable politique nekk ca Ndar Géej yal na yàlla gudda fanam suñu marraine la suñu xarit la suñu yaay la yal ko yàlla may fan bu gudd bu ànd ak wér-gu-yaram Sëriñ Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Buri sama xarit la sama soppe la waaye ki nga xam ne moom lañ ko dénk di suñu yaay ju baax ji di ajaratu kine si yal na yàlla gudd fanam kooku nag doom la ci suñu baay ji nga xam ne ñu ngi koy jooy ba tey noppi guñu di Cheikh Ahmed Tidiane si Al yal na yàlla daf mu a kawe Sëriñ ko yàlla may fan bu gudd a guur garam waxtu bi bu ñëwee nag sama yaram day daw ndax sama baay daan na toog jàkkaarloo man di alaaji Tafsir Sakho Iliman ak muñam nga yal ko yàlla def mu xippee ci àjjana ya gën a kawe yal na yàlla gudda fanam alaaji xaale mbaay bëgg mbaxal nekk ci Serekunda yal na may fan bu gudda wér gu yaram Serigne Gora Seye serviteur de l'islam mars incha allah mooy bés bi nga xam ne moom la ñu duppee 99 noonu la jéeyi bi paa nag da koy def en direct si ñaari télévision yu mag yoo xam ne ci biir réew mi su ko defee nag li nga xam ne moom mooy distanciation yi wax entre nit ak nit ci mbas bi ñu mun koo moytu moom tamit mu jàpp ci bés boobu fas yéene nag indi tamit bu baax ki nga xam ne mooy imam Kaaso Gassama yal na yàlla gudda fanam góor a kawe mbokk ñu ni tamit bu baax Serigne Bara Cissé nekk ci dëkk ba nga xam ne mooy jaxaaw yal na ko yàlla may fan bu a wér gu yaram Chérif Abdoul Moutalib euh, Tidiane sët la ci Cheikh Abi Tidiane nekk ca Pikine yal na ko yàlla bu gudd ak wér gu yaram Serigne Hadi Cissé ca Fass Touré yal na ko yàlla defal jàmm njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha Sow waaliyu Kamin xalifu Maam Abdoulaye Sow ca Dagana ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Alaaji Banfa Karamaxo Saanaxo xalif général bu euh, Touba Saanaxo moom tamit ñu ngi koy ñaanal yalla may ko fan bu gudd bu ànd ak wér gu dem nag bu mag bi nga xam mooy dëkk ko Alaaji Mouhamadou Modou Aysata xalif général bu Guet Ardo ñuy nuyu ki nga xam ne nag mooy sët ba de Cheikh Aldiouma Ba porte parole xalif général porte parole xalif général bu Guet Ardo ñu ngi koy ziar Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye xalif bu Luubudu kër Mama Sarr moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram njabootu Alaaji Mbàkke Tànja waaliyu kaamin la woon rabia taala anhu yal na ko yàlla ci àjjana gën a kawe njabootam ci Medina Tànja ci Jurbel ziar nañ leen Cerno Alassane Mbaye di taalibe ci wërësoo gi di ziar tamit euh, Samba Dramé euh, nga xam ne nag moom moo fa wuutu nag xalif ba di Alaaji Babacar Dramé ca Dramé ndimb mooy xalif ba yàlla na ko yàlla may fan bu gudd bu ànd ak wér gu yaram Alaaji Bare Fat Fat nekk ca Gambie yàlla na ko yàlla may jàmm Imam Mansour Seck nekk ca Yëmbal di professeur arabe moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla jàmmal ko may ko tamit jàmm gu yaatu Serigne Medoune Boye doomu Alaaji Basiru Boye mu xaddam la woon ca jamonoy maam Khalifa Niass radiyallahu taala anhu moo ko defoon mu xaddam bu mag moom waajuram bu góor di Alaaji Basiru Boye yàlla na yàlla def mu xippee ca àjjana waaye doom ja doon na bàyyi ja di Serigne Medoune Boye ñu koy ñaanal jàmm ca dëkk ba nga xam ne mooy wañang <coughs> di am mbégte ak contentement bu mag di gërëm tamit Serigne Djili Samb marabu chef religieux dëkk ca quartier Samba Lawbe en face gare routière yal na ko euh, ñu ngi koy seetaan euh, di ko ñaanal jàmm ak xéewal Cheikh Abdoulaye Soxna Fatick ñu xam nag ci Serigne As Soxna di xalifu baayam Barxam Soxna dëkk ci dëkk bu ñu naan Médina Mbalaay yal ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd wér garam waaye di gërëm tamit bu baax képp koo xam ne kilifa diina nga rawatina sama baay bopp di Serigne Mouhamadou Kabirou Sarr xalif bu feu alaaji euh, Moustapha Sarr nekk ca gin gineew waaye sama xel day dem sama baay ju baax ja alaaji a moom tamit di ko jaale ki nga xam ne mooy baayam ju baax jooju nga xam ne dimanche bu nekk dana dem seeti baayam defal ko ay ñaan Mbacke yal na yàlla defal fan bu gudd ak wér gu ni nga taxawee sa baay ji yal na yàlla taxawee noonu ci jàmm euh, doom ja doon na bàyyi di maam Abdoulaye Kébé nga xam ne wax dëgg yàlla conférencier bu mag la ko maanu te ni te yàlla tax bu jaaree fi baayam jaaroon wax dëgg yàlla àdduna ñëpp dañ ko sopp ndax baayam jaar jaar bu rafet la am fii ci biir àddina Serigne Abdoulahi Diagne Kang Korosma bu Ngoundiane la dëkk moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal jàmm Serigne Bassirou Gadiaga nekk ca Dingaral xalif bu Serigne Mactar Gadiaga moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm ak fan bu gudd ak wér gu yaram mbokk yi ci li ma xam waxoon suñu mbokk nañu yàlla yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér gu yaram mbokk yi kilifa diine yi yal na leen yàlla sàmm kilifa diine yi yal na leen yàlla aar may leen fan bu gudd ak wér-gu-yaram ñoom daal ñoo yor gouvernement yàlla ci kaw suuf wax dëgg yàlla wormal bi ñu leen di wormal ak ñaanal gi leen ñaanal dafa naturel ci ñun dafa sax ci ñun amul lenn loo xam ne da ci lëndëm yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñu yàgg fi loolu te wér ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna yàlla na yàlla xara ci àddina gën a kawe waaye wax naa leen ko mbokk saa Euh, damay nemmeeku nag euh, ay ay bés yu nekk damay dem ci kër kilifa diine di leen nemmeeku waaye wax dëgg yàlla sama baay ji waxoon naa ko ne saa yi ma toogee ci tele bi danaa génn sa portrait ndax góor gu ma yéem la di góor gi yet ma deer dëkk ca njàmb faal këram la jël xaaj ko ñaar fii alxuraan la xale yi fa dañuy jànge fii njabootam di fay ay professeur pour xale yi di jàng alxuraan balaa weer bi dee seen ñaq di fend góor gi yëkkati na xaalis jox ko professeur xale yi di lekk bu baax di tëdd bu baax di jàng ci yoonu siraatal mustaqiim taalibe sëñ Babacar Sy dabal taala anhu baa ngi nii góor gi yal na yàlla defal jàmm may la fan bu gudd ak góor gi yaram sàmm la sàmm sa njaboot yàlla lii nga xam ne moom ngay def ci xale yi pour ñu am buntu xam yoonu siraatal mustaqiim di ci tegu alxuraan njëkk dugg seen xol ak seen xel balaa ñuy jàng ci euh, école tubaab bi yàlla la ko yàlla fay ci barke rasulullah yi kontaan nañ trop suma góor gu baax gi mbokk yi lu ay di jàmmat li coor kenn du ko fay prix bi laa wax ne buñ ko xeebee man xeebuma ko ndax prix la boo xam ne ba tey ma ngay yëngal li nga xam ne mooy réseaux sociaux ak actualité ba tey sag bi nga xam ne sagal nañ ma ko ci lii maanaam patrimoine culturel vivant 2020 mooy maanaam reconnaître nañu Kouthia ci fanweeri at ma ngay doxal li nga xam ne moom lay doxal ba nag am xët bu mag boo xam ne benn responsable politique bu nag nekk ca APR ñu naan ko Khalifa wàdd daade dee génne ne siin saalum yëpp ñu ngi sargal Kouthia ci li nga xam ne am na ko ci ndoomu tànk boobu ba tey ñaari journal yu mag di quatre heures def ci ab xët bu mag ak journal l'évidence def ci xët bu mag ne Kouthia nag wax dëgg yàlla sargal ko jot na nag ndax lii mu def du lu ndaw boo ibbee évidence bi ci biir ba ca page ba ca digg ba def nañ ci xët gu rëy goo xam ne ña nga cey wax li nga xam ne mën nañu war a wax des ressortissants du Sine Saloum bombarde Kouthia déloge maanaam ay doomu saalum saalum nee nañu wax dëgg yàlla Kouthia daal macha allah fu toor fa kàlla ba ñu bind ko ci journal bi. ñu ne déet na waay beneen journal bi ne ko dama lay feelu <laughs> ndax loolu nga bind doyul. muy journal 24 heures lu xaw ci bés bi ñu ne Kouthia désigné comme patrimoine culturel humain ñu ne déet na waaye am keneen ku wax ci suuf après sa distinction des ressortissants du Sine Saloum bombarde Kouthia déloge kii nga xam ne nag moom moo toog di xeltu ñu naan ko Khalifa Wade nekk chef de cabinet Baba Ndiaye bu président conseil départemental bu Kaolack wax dëgg yàlla wax ji wax bu am solo ci doomu Saalum Saalum Saalum yépp ci biir Saalum nee nañ daal ñoom Kouthia xam nañ du Saalum Saalum waaye ñoom waa Saalum yëg nañ seen bopp ci Kouthia li muy def ndax sargal bi muy sargal kilifa diine yi nekk ca Saalum waaye bëgg bi mu bëgg waa Saalum waaye siin bi Kouthia sant sax te siin nekk ci biir Saalum ñoom loolu da leen doy ak Kouthia prouvé xalifa Wade mooy ñëw indi li tax moom tey mu bind ab xët jagale ko ci internet bi dugal ko ci réseaux sociaux yi moom xalifa Wade lan moo waral moom en tant que responsable APR mu delloo njukkal Kouthia Saalum Saalum bu mag bi ñëw na Saalum Saalum baa waay Saalum Saalum bee waay ayca ñëw leen ma dégg nadar nadar nadar waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk yi lu ay di jàmmat lu ñëpp gis ne mu ngi nii ku gis nen ne nena ngi wax fa dëgg yàlla ñun dañoo nekk ay responsable politique di gis ni réew mi di doxee ñu xool ne wax fa dëgg yàlla nit bu amee prix àddina daa nangu ne kii lii muy def nii ñëpp nangu nañ ne wax dëgg yàlla nangul nañ ko ko mu nekk loo xam ne dafa constant ah wax fa dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñooy doomu Saalum nangul nañu Kouthia lii nga xam ne moo ko yàlla may ci bëggal doomu aadama yi ci diggante ci 18 euh, jàpp 19 xët bi ma bind nag jëmale ko ci journaux yi dama ko def parce que du man kese ndax boo demee ci kër kilifa diine yi boo demee ci kër kilifa aada yi boo demee ci ndaw yi ci xale yi ak suñu yaay yi nga xam ne ñoom la ñuy bàyyi suñu doom bu ñu nekkee ci bureau yi moment bi nga xam ne suñuy doom dañu doon nekk ci mbedd bi ku caa tax na xale yi dugg ci kër gi tax na tamit mag ñi toog di ko seetaan ngir xam xibaar yi nga xam ne mooy jàll ci digg bëccëg bi te mun mun toog di ko seetaan Kouthia indi leen ko ñu mun cee jëriñu xam ko ci suukar ak xorom ba mun koo xam ne lii mooy li xew tey ci bés bi lii nga xam ne moom la Omart def te UNESCO dëggal ko wax fa dëgg yàlla bi mu ko waree def du tey yàgg na ndax ki lay indil xibaar bi lay bëggal ci kaw xibaar ki lay jox li nga xam ne mooy xibaar bi bés bu ne te amul dara lu ciy sopp lu dul suukar ko ak xorom ko ba ñaan ñëpp daa ci bëgg wax fa dëgg yàlla dañuy def lu dul delloo ko jukkal ndax am na ay bés yoo xam ne kër mënoon na see tàkk am na ci ay diggante yoo xam ne naroon naa yàqu ku caa dajale leen boole leen ba indi jàmm ba ñoom ñaar bu ñu gisoo daal jàmmoo dama ne am na loo xam ne bu amee ci réew te ñuy sargal ñoo xam ne si seen ginnaaw mm. te seen biir dund ñu war leen ko defal mm. bu amee ñu jël am fulla ak mat goo xam ne defal nañ ko ki nga xam ne mooy Abu Bilal defaluñu ko moom kese de dañ ko defal ñi nga xam ne ñooy soppee Abu Bilal ak ñi nga xam ne ñu nekk ci yoon boobu pour mën a am ëllëg la dama ne mbokk yi ku nangu dogalu yàlla doo sonn ndax li yàlla dogal loolu kenn mënu koo dindi am na ndogalu yàlla yoo xam ne ne dañ koy bind ak crayon gomme mën na koo effacer waaye am na ndogalu yàlla yoo xam ne yàlla da koy bind xalima ba te yàlla kenn du effacer xalimam ndax moom mooy bind waaye mbokk yi du ñu def lu dul delloo njukkal ñun ñi nga xam ne ñooy doomu siin saalum dale ko ci saalum ak siin booloo yépp ak foo ti jaar bu émission Kouthia tàmmalee ñëpp dañuy ànd ak mbégte ndax yar ga ca am teggin ga ca am warmal ga ca am yëg gi mu yëg kilifa diine yi ba leen di wane kenn ku nekk xam ne ndekete senegal am na ay waaliw kaamin yoo xam ne ñu ngi ci réew mi di liggéeyal ci yoonu siratal mustaqim Kouthia di ñu xamal ñooñu ñuy jàpp seen tur ba di leen di ziare bëgg leen jox cër dañuy delloo njukkal Kouthia man xalifa Wade nekk responsable APR ci biir Kaolack saytu bi nga xam ne def naa ko ak sondage bi nga xam ne maa ngi koy def ci bërëb yi fu ñu tuddee turu Kouthia macha allah ba ñëpp daa dee génn kon nag damay lance appel le président de la république Macky Sall bi nga xam ne man militant laa ci biir partem nekk responsable ci biir partem que jot na nag wax dëgg yàlla bu ñuy décorer nit ñu dem ko def ci moment bi nga xam ne mu ngi dund ak njabootam du Kouthia rek fi nekk koo xam ne dañ ko war a décorer. am na ci ñeneen ak ñeneen yoo xam ne senegal war nañ leen mën a dégg pour ñu mun leen a defal loolu ñu koy dund di ko gis fekk ko seen kanamu njaboot. gis nit ree gis nit daa dee bëgg ute nag ki nga xam ne boo ko gisee fit na daa dee ñëw nga mer moo jooy war nga daw làqatu dama ne mbokk yi li a senegal li war ak sénégalais yi ku caa def na ko ci diggante fanweeri at di leen bëggal bës bu ne kon bésam bii nga xam ne man dama koo jël dafal ko xët bu mag ci li nga xam ne ci laa gis ci jaar-jaaram am ay professeur université yoo xam ne ku mel ne Ndéné Mbodj jàngalekat bu mag boo xam ne yemul Sénégal day dem bay jàngale ay États-Unis di dikk di ñëw bind ab livre ci Kouthia maanaam ni muy joxee xibaar ba muy dugg ci xolu nit ñi ba nit ñi di ko xam ñu ne déet na waaye Mamadou Ibra Kane xam-xamam ci màcc ci li nga xam ne mooy journaliste ànd ceeg Mamadou Ndiaye bind ay xët ñu ne déet na Ndiaye ñu ne Amadou Sène Niang bi nga xam ne xam-xam dafa màcc décentralisation ci commité local yi kooku bu ñu bindee ay livre jëmale ko ci Kouthia kon Kouthia dépassé na les normes yi nga xam ne moom lañ ko doon xaare bu ñu bett nag ëllëg bu ñu demee université yu mag yi mel ne Houston war a université yu mel ne Bordeaux war a académie française ñu woo Kouthia di ko fa sargal ndax li nga xam ne moom la def ci éducation culturelle et humour yóbbu ko ci li nga xam ne fa mu eggul woon ci làkk bi mu nàmp di olof ba ay réew tubaab ak ay américain di ko génn di ko fësal ci exemplaire yu mel noonu kon mbokk yi bay sa tànk balaa ngay jéggaani bay feneen Kouthia daal ñu sargal ko ak ñu bañ ko sargal man xalifa maa ngi wax ne doomu Sine Saalum yëpp ànd nañu jàppale ànd ak Kouthia pour génne li nga xam ne moom ñoon bëggale ci fanweeri at suñu ay kër tasul suñu ay doom réeratul suñu njaboot ngi ànd mbégte bi am ci diggante politicien ak opposition entre opposition ak gouvernant Kouthia nas na ci loo bëri wane na ci ay nit ñu xamuloon génn na ñu xam fexe na ba jubale ñoo xam ne dañoo réeroon kon wax fa dëgg yàlla Kouthia dañ koy delloo njukkal di ko gërëm man nag Khalifa Wade ci turu doomu siin saalum yëpp rawatina ku caa sant siin te dëkkul saalum waaye santam ba nga xam ne moo tax ñuy wax siin saalum jigéenewuñ ko ndax xam nañ ne saalum dëkku xam-xam la ci turu Khalifa Wade ak militant APR yëpp ñu ngi ànd di gërëm ku caa di ko sant di ko gërëm ci li nga xam ne bokk na ko ci émergence ak participation communicative ci li nga xam ne moom mooy doxalu réewu Sénégal ak ci biir politique wax fa dëgg yàlla président de la République Sall nangulal ku caa ne héros la patrimoine national la nekk na koo xam ne tamit moom mooy le partenaire des Sénégal à une heure de divertissement anti-stress pour faire rire les Sénégalais kenn du Kouthia kon ñu sargal ko war ñu bañ ko sargal cooli cooli Kouthia la booy siin booy saalum booy jolof yaa fi ne booy siin booy saalum الضريحة لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس am nañu mbégte ak contentement bu mag Ajaratu Sooda Diop yaayu Daara depuis France présidente Daara sans frontières suñu xarit la daf ñoo bëgg rek te yàlla tax Adja Sooda Diop yàlla na sa jàmm yàgg. dafa taxawal benn daara boo xam ne daara sans frontière dimbali nit ñi ak social ci lay dox moom Adja Soda Diop yàlla ko yàlla jàppale ndax moom daal wax dëgg yàlla dafa dem ba gis ne social lu am solo la ci réew moo taxit daara sans frontière bi nee na du ko yemale sax ci ci frontière day day fëq frontière yëpp fu ndimbal war a dem rek ci àdduna bi dina ko fa def ñu koy ñaanal yal na ko yàlla defal jàmm moom Adja Soda Diop di ku baax suba nag dinaa génne portelem parce que dafa jot pour sénégalais yi xam ñi nga xam ne ñooy jëf lu baax. Adja Soda Diop ca France yaayu Daara depuis France présidente Daara sans frontière ak ñi mu ci bokkal ñëpp yal na yàlla defal jàmm. di jigéen ju baax bi ñu ma koy présenté Apulaay li mu njëkk def dama ne allo rek mu ree ba daanu. reer ba kekku mu ne ko waa soxna si mu ne ma dama laa bëgg te yàlla tax. Kouthia yaa ngi may bégal yaa ngi may bégal may bégal moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram euh, Serigne Issa Sarr sopp na bi ca dëkk ba ñaan Njaañ ñu koy nuyu di nuyu waajuram bu jigéen tamit bu baax a baax di nuy tamit euh, Ndiaye Ñang depuis Njaañ ak soxna Faati Fall depuis euh, Njaañ soxna Bintu Ndiaye depuis Njaañ ak soxna Euh, Asta Ñang depuis Thiès ak Serigne euh, Ndiaga Njaañ euh, Ndiaga Diagne imam ratib bu Njaañ moom te tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Amar Diagne Euh, depuis Njaañ moom tamit ñu koy nuyu ak Pape Gueye Naar ñaan ko téer bu mag bi nekk ca Njaañ ak Babacar saar depuis Argentine Ablaye Sarr petit frère de Serigne Issa Sarr sopp na bi Serigne Issa Sarr sopp na bi mooy koo xam ne boo banquee sax ne ko sëñ Issa mun a mun a mun la naam nga ne ko yaa bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam lu mu amoon ci poosam jox la ko ba nit ñi dañ koo xam léegi sax bu ñu ko gisee rek ne ko sopp na bi rek day daanu yaa na ko yàlla defal jàmm ko fan bu gudd ak wér yaram waaye sama turandoo ba di Kouthia bu ndaw nekk ca dëkk ba nga xam ne moom mooy jam weli ca campement Ngeexoox maa ngi nuyu baayam di du Ba waaye maam sama xarit la di Yuka Ba délégué de quartier Jamweli di nuyu yaayu Kouthia bu ndaw ñaan ko Khady Ba ñoom Aminta Ba ñoom Assou Ba waa Jamweli quartier Jamweli yëpp maa ngi leen di nuyu di la ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di jàmm lii nga xam ne mooy table Idrissa Seck bi ki ma ko may di sama xarit di ñu baax ñoo xam ne nee nañ ma pareeguñ ci yow sa décor ñoom ñoo ko yor te ñoom la koy defal mooy waa coup de cœur un laboratoire de curiosité ñoo xam ne ñoo offrir Kouthia tableau bi di am anak yoo xam ne yu day waat dama fa dem barke démb di visité foofu ñu cuuraay ma ba moins cinq su ma demoon sama kër mënoo am mënoo naa am problème cuuraay gu neex goo xam ne maar day taani waaye objet d'art yu bëri yoo xam ne genre galerie la boo xam ne galerie a créativité boo xam ne lu doy waar moom daal maanaam maanaam daal seen seen mbir daal doy na waar ñoom nag seen numéro téléphone lii nag cassette la nee nañ patrimoine national bi moo tax ñu indiwaat œuvre cassette teg ko ci ñu defal ko kon format cassette daal mais ñu baax nañu seen numéro téléphone 77 la 197 51 51 ñu baax nañu loo soxla ci œuvre daara boo demee foofu fekk ko fa ñu baax nañu yàlla yàlla defal jàmm yàlla may ñu fan bu gudd ak wér gu yaram yëpp waaye nag ngeen fàttali ne wéef bi moo leen may seen émission madaar ak lii nga xam ne mooy setol bi dafa taxaw pour xeexaat mbas mi dee leen sangu dee leen sangu ngir yàlla am naa sama copain yoo xam ne du sangu nee leen sangu am naa ci sam benn copain boo xam ne du sangu wax nañ ba tay nee na seddaay bi ñëw na dootu sangu nee naa ko koo kott mu dee bàyyi li ngay def tataay yëpp dañ koy daw dañ dem ba si fa tataay yi xamee ko bu yëkkatee loxo maara day taane liy génn ci poq yi nii da ngay mel ne ku ku dajale jira géej ji rek <laughs> jël géej rek ak yër dajale ko maara day taane madaar dafa ñëw pour xeex loolu dee leen sangu mbokk maître El Hadj Diouf nee na programme bi nga xam ne moom la Macky Sall Macky Sall génn na programme de nee na dafa na plan de programme pour ñàkku bi mars bii 2021 neex na xari ñàkk par la force xawma fu ñu ñàkkee nit ñi nag mais nag El Hadj Diouf nee na rek boobu moom da ciy taxaw tem pour wax ci président nan lañu koy defee ñu xool nu ñu koy organiser ñu seete maître El Hadj Diouf Saloum Saloum bi mbokk yi maa leen nuyu ku eh, wax ne wax dëgg yàlla président Macky Sall dégg wax tey ci journaux yi loo xam ne dafa tàggoowul xam nga dafa am loo xam ne buñ ko joxee nit na yaa koy doxal ni ko war a doxalee mooy nga fexe ba loolu nga lëkkaloo ci ak ñi nga xam ne ñoom nga war a lëkkaloo dama yeewu jënd journal lii journal bi dégg ñu ne président Macky Sall préparé plan national pour ñàkk bi ñu ne waa Sine seen ñàkk moo gën a neex moo gën a wóor ñeneen ñi seen mbas neexul wóorul waaye léegi damay laaj Sinoa yi da gis Sinoa yu wér yu ñàkk ba wér Macky yow ñàkk yi da nga ko ba mun a xam bii moo baax ak bee ma bon deuxièmement nga def benn plan boo xam ne à partir de mois de mars bi di nga def ay ñàkk 3 millions sénégalais 3 <laughs> millions sénégalais ngay ñàkk man sa plan bi nga defar contre ma ko parce que yow yaa nekk ci yaa war a doxal évidemment bu fekkee dañu war a ñàkku dañu war a ñàkku man bañu ay ñàkk man bañu ko parce que man xam naa ne corona am na man xam naa ne corona am na parce que daal na ma na ma bu ko dalul woon mun naa fi nekk di laam laamee naan gars yi dañuy jàppale am na loo xam ne tamit il faut ñu wax ko d'accord man plan bi nga xam ne moom nga proposé nee nga à partir de mars bi fin mars bi am na ñoo xam ne dañ leen di ciblé pour ñu ñàkk leen ak ñu war a ñëkk ñu war a ñëkk ñàkk. proposé hmm. te li ma proposé moom la waa Sénégal ñëpp ànd proposé mooy premièrement premier programme hmm. mooy gouvernement Sénégal. kan mooy président Sénégal yow la sénégalais yi wóolu teg la ci bopp réew mi yow yaa demoon di jongante ak président Ablaye Wade ak Macky ak ak ak Idrissa ak Abdou ak ñeneen yow nga gagné yëpp jël président de la République Sénégal assemblée nationale yow yaa aak ku fopp député yow Macky Sall yow programme bi xam nga lay demee du yow yaa ñuy proposé ñun ñoo lay proposé parce que ñun ñoo fal yow faloo ñu de yow kenn nga ñun ñoo la fal léegi xam nga programme bi mu demee yow yaay njëkk ñàkk loolu féete nañ ko ba loolu loolu moom amu sax ay waxaale te man maa lay ñàkk loolu féete nañ loolu wax nañ ko ba pare parce que nga man maa ñak ñàkk man El Hadj Diop ñaareel bi mooy say ministre ak sa gouvernement ak say député. ak say gouverneur ak say préfet ak ñi nekk ci service administratif bi nga xam ne yaa ko jiite ñoom ñëpp ñoo njëkk ñàkk noonu lay demee bu ñu paree nag ñu xool ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow nekk ci benn man fa de ba tey fa ba tey de dàq guñ ma xam naa ne fan yii ñu may waaj dàq na ñu may jëw jëw yi nga may jëw yëpp maa ngi koy dégg mënul nekk ci mbool bi lekkoo ci lekkoo ci ndab bëgg cee xëpp suuf waroo cee xëpp suuf kama ko Youssou Ndour lekkoo ci ndab warul tax bëgg cee xëpp suuf ah la ci après lekkoo ci ndab warul tax bëgg cee xëpp suuf xaaral ma yooyu sa bés dana ñëw na man maa ngi ci ndab bi lekku ma nga téye sama loxo te dama waroon lekk ñu ñi nga xam ne ñoo toog ci ndab li nga génn suñu loxo dem jëli soow soow yow danga ñàkku ses militants sa waa kër ñàkku képp ku nekk bennoo ànd ak yow te gëm say idéologie dana dem ñàkku député nekk assemblée ak ki jiite Moustapha Niasse dina ñàkku gouverneur ak préfet yi ak ñi nga xam jiite ñoom dañuy ànd ak yow ñàkku équipe nationale a ñëw Lion yaa bu ñu soxlaa campagne Sénégal yëpp nekk seen ginnaaw ñoom dañ ñëw lion yi nañ ñëw ñoom tamit ànd ak président Macky Sall ñàkku parce que dañu jox suñu ay prime ñu koy lekk artistes yi nga xam ne ñooy ànd ak yow maire Sorano yi yi nga xam ne nekk Sorano di way nga xam ne ku ñëw ñu ànd ñoom <laughs> maire ku ñëw ñu la pour président bu ñëw maire yëpp yi nga xam ne dañuy way ci président Macky Sall ci ay tournée ñoom ñëpp dañuy ànd dem sëriñ yi nga xam ne dañuy ñëw ustaas yi nga xam ne recevoir nga leen am na ci ñaari ustaas yoo xam ne recevoir nga leen palais na ba kan kan moo demoon Modou Fall ak kan moo demoon Babaan yow Modou Fall ak ustaas Babaan mu neex leen mu naq leen di ngeen dem ñàkkul parce que bay dem saa yi compana la jox nga xaalis xaalis bi la jox suñu xaalis la. kan yow yaa toog fii ne Macky Sall mooy sa mentor yaa ko yaa Macky Sall mooy sa mentor <laughs> Youssou Ndour yow yow bi yaa ko war a njëkk def parce que yow <laughs> saa waay sa xarit la <laughs> soo waay nag wax dëgg yaa moom rajo bi yaa ko sa télé bu ma mere nag parce que wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ sa waay sa loolu sa waay xam nañ la. kon yooso war nga gën a génn benn way boo xam ne nañu dem ñàkku ji way ko ba nga ñëw ñàkk war nga fi set setooy set waaye ñu ñëw way na ñàkk ñàkkoo ñàkk yooso Ndour yow ak waa Super Étoile yëpp da ngeen a dem am na télé yoo xam ne doo leen dégg ñoo ci corona de am na télé yoo xam ne doo leen jàpp ñoo ci corona ca buntu ba ah ngay dugg nañ lay laaj masque di nga raxasu ci buntu bi génnaat raxasuwaat kuñ naan Assane ak benn paa bu nekk foofu di nekk chef de scène nga génn foofu te sant boobu noonu mu naan la ndax takk nga masque booy wax ak ñëpp dañuy mel ne ñoom ñëpp dañu masque woo waa TFM dale ko ci Birane Ndiaga booba rédaction technicien réalisateur ñoom ñëpp dinañ ànd ak Youssou Ndour dem ñi nga xam corona dara leen fa pare ñoom yàlla dimbali leen ñoom génn nañ ci mbala gi parce que corona bu la jàppee ba daanal ba dana bëgg dër ba pare soxlatul ngay ñàkku ji kon Kouthia ak ñi nga xam ñoo corona woon TFM ñoom bokkuñu ci ñuy ñàkk tey ngeen de yéen ñi bi daloon tey ngeen ma da daloon na ma génn naa di ngeen xam ne ñàkk bee gën a saaf ñàkk bee gën a saaf tëdd bi moom président Macky bu fa bàyyi kenn ñoom ñëpp ngay boole ñàkk parce que dañ koo yenew te yéene guñ ko ba tey balaa nga fay la takkal masque ak loo am daraja ñu ne la takkal masque gars yi dañoo wàññi sax employé parce que ragal corona. mu neex leen di ngeen ñàkko ji mu naqare leen di ngeen ñi ànd ak dem ñàkko ñi àndul moom te ànd ak moom ci xalaat dem ñàkko ji waaye TFM yéen ñëpp di ngeen ñi feebaroon dem ñoo day doon daw waaye président Sall TFM mooy télé bi nga xam ne moo la jàppale ci xeexu corona bi guddi ak bëccëg di seen débat ñoom ñëpp dañuy affaire bi ñàkku ci neex waxi bu daf science ak yow su loolu comme bu mu jóg de dee bu mu jóg dama ne mag Sall nga bul xaar dara demal nga ñakkoti Moussa Oumar Maka ko samba ya jalawre ya oyle barogal baro mbokk yi am nañu mbekk ak contentement bu mag di gërëm xaali or nekk ca Tivaouane quartier ji de Talibé Almakhtoum moom tamit ñu koy ñaanal fan bugg gudd ak yaram nit la koo xam ne dafa social ci ay oram fexe na nag daal ba bëgg képp ku nekk ci doomu Tivaouane wax dëgg yàlla ngay takk or di briller nañ sa nawle yi moo taxit yemale ko Tivaouane rek da koo yaatal ci gox yëpp ndooy lébu suba la suba incha allah anniversaire soxna Seyda Mariama Ndiaye suba la cameraman bu mag bi fii suba incha allah bu soobee yàlla dañ koy def émission bu bu bu taqarnaase ndooy bu nee na xar ya xar yaa ngay xar yaa ngay wadd ginaar yooyu yëpp defar na ko ba pare fu mu ne nii moo wax dëgg yàlla macha allah euh, togg yàq joxe rek lay def wala ko euh, ànd ak set ak séducé distanciation yi dina am nag suba bu soobee yàlla waaye kuñ fi kat sur invitation la nag dañoo am mbas bu kenn ñëw fi te woowuñu la fi ñu fi woo ñëpp nañ ko xam ñu dul loon dugg fii temps bi nekkee ci mbas bi ku fi teg sa tànk di dañ la génne lu leer lañ leen donc léegi nag loolu ñu ngi koy fas yéene amal euh, suba incha allah ci kattanu yàlla à partir de heure bi duñ ko joxe parce que day bëri xaaran candidat day ñëw te feebar bi dafa am te ça existe te kenn ku ñu rax ci ñun biir euh, moo taxit euh, moom ndoyle bu nee dina ñëw incha ànd ak li nga xam ne moom mooy distanciation ak def li nga xam ne moom la ñu a def ci bés bi ñuy ñaan nag yàlla ci yàlla defal jàmm te cat bañ cee dugg te yàlla may ñu ñëpp ñu yeewoo jàmm te ñëpp fekk ko ci jàmm di ko anticiper anniversaire à sa belle-mère Mami Abi Mbeng Mami Abi Mbeng yaayu Sooda Ndoy euh, Euh, Sodo Ndoye euh, Tata nabu euh, Madou Diop ak Ibou Diop photographe ca RTS di ko ñaanal longue vie et santé de la part de Pape Laye nekk ci RTS sama xarit la yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram Ajaratu Sodo Diop yaayu Daara depuis France internationale depuis France présidente Daara sans frontières sama xarit la yàlla ko may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram Alaaji Ibrahima Ba taalibe Serigne Moustapha Sy Jamil ak soxna soxna Aïda Sy yaayu Fat gay Ba depuis Fass Mbao ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram ca cité Aliou Sow waaye ñu am mbégte ak contentement mbokk yi euh, dama fi yëkkati sant yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ leen di génne ayu bés bu nekk démb wax naa ci ñi nga xam ne ñoo sant loo ak sàmb waaye wax dëgg yàlla ñi sant sëy ñoom ña ngay préparé bu mag boo xam ne dañ koy indi ci plateau bi pour décorer waaye ñi sant sàmb moom gisuma ci kenn koo xam ne sax wax nga message yooyu kon li ma waxoon ci ñi sant sàmb euh, danaa ci delluwaat am lu ma ci rectifié waaw parce que vraiment euh, bu dul dara sax ñi sant sëy ak ñi sant kebe ñoom yëngu nañu sax ma xam ne yëngu nañu ndax dégg nañ ko waaye ñi sant sàmb ak ñi sant loo ñi sant loo moom am na ko ma ci woo démb dafa dafa dafa jooy nee na ma li nga dafa am mais gis nga gis nga sant yi am na ci sant bu doy waar bu sant bu doy waar mooy jaw jaw laa ilaaha illallaah sant jaw ci mim réew mi oh. sant jaw ak kulibali Koulibaly gis nga boo santee Koulibaly euh, yàlla daf lay daf lay daf lay cest sant Koulibaly moo raar Koulibaly sant la boo xam ne ci biir réew bii Sénégal ak ca Mali ñaari tànk la taxawee tànk Mali ak tànku Sénégal sant Koulibaly ci réew mi non seulement fierté la dangay toog ak ku sant Koulibaly ngeen di lekk wallahi mu xam na ne yaa ko gën a xiif muy ñimantal pour nga suur rek ndax moom buggul joxe ñam sax nga suur mën nañu joxe ñam am nañu yërmande baax nañu bëgg nañu njaboot te buñ la xasee ba jox seen xol duñ ko delloo ginnaaw muy bu góor bi muy bu jigéen bi yàlla rek bu tax may wax sant Coulibaly ci réew mi wax dëgg yàlla du du du du du loo xam ne ay ay caaxaan baax nañu ci ñam yaru nañ jullite dañu bëgg nañ seen aada ak seen cosaan te duñ ko bàyyi mukk ndax dañoo fier ci liñ doon Koulibaly Koulibaly Massa boo demee ca Mali tey tey tey tey tey tey bu fekkoon day am ñoom ay doomu buur nañu doon kenn du leen diriger ñooy diriger di xam ne dañoo am jom te nag kaay ma xamal la ñuy sant Koulibaly bu li ma leen di waxal nii tey tey tey bu toqee seen nopp tey tey tey du ñu tëdd nelaw fu ñu jaar dañ lay taral ñooñu teral nañ ba fekk gaynde tëdd ñu daal di koy rey fees yàpp yi Koulibaly rek ngay gis mu lekk yàpp gaynde mu jik ko ndax gaynde Koulibaly la sant santu Njaay de boo demee Mali gaynde Koulibaly la sant waaye li jur gaynde moo sant Njaay gaynde yaayam a sant Njaay waaye baayam Koulibaly la sant gaynde dëgg Koulibaly la sant am na na ñoo xam ne nag am nañ ci soxna <laughs> am na ñoo xam ne am nañ ci soxna borom kër gi soxna Coulibaly la sant kon li may wax xam naa ko am na ñoo xam ne tey lii buñ ko déggee duñ ko nelawaale te yëkkuñu téléphone woo la boo ko defee rek santoo Coulibaly bali nga sant waaye kuu bi ñëwul suba la naa wax ñi sant jaw nag la tax ñu war leen ragal ñu sant jaw suba suba ñoo ñu war leen ragal mbokk président Macky Sall ci boppam nañu dem seeti ñu xool parce que Macky Sall jël na ay décision ferme nee na nag sénégalais yi ku ku leen nappul <laughs> xaaral lañ dem ñu seetam salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu soo gisee ma woo leen yéen ñi nga xam ne yéen maire yi ak chef de quartier yi ak bàjjanu gox yi ak nijaayu gox yi créé naa nijaayu gox <laughs> waaw parce que bàjjan fu mu amee nijaay am fa <laughs> nijaayu gox yi nag mooy góor ñi nga xam ne dañooy taxaw taxawaayu boroom kër ci këram te amagul soxla soo gisee ma woo leen chef de quartier yi ak délégué de quartier ak maire ak chef de village yi dama bëgg ñu waxtaan parce que chinois yi jox nañ ma ay ñaq démb gis naa ko ñam naa ko waaw ñam naa ko te gisuma ci dara loo xam ne dafa aay parce que war nañ ma ay scientifique yoo xam ne nee nañ ma bu chinois bi baax na waaye dañ ci ànd ak tey léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen laa woo fii yéen ñëpp chef de quartier bu Dakar bu Yaraax bu Pikine chef de village yi gis naa leen yéen ñëpp macha allah ni ngeen toogee ci salle de bouquet bi ak mbégte bi ngeen toogee lekk ngeen ba suur naan ba nondi ma génn wax ak yéen kontaan ci yéen. maa ngi gërëm chef de village yu Wakaam maa ngi koy seen ak bu Parcelles Assainies maa ngi xool tamit imam yi nga xam ne ñoo fi nekk imam bu dakaar bu Parcelles Assainies bu Guédiawaye bu Yaraax bu Tëngéej yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm ku nekk sa tur ak sa sant léegi maa ngi wax gouverneur dakaar parce que gis moom moo leen dajale yéen ñëpp chef de quartier yi nga nekk au nombre de 475 ngeen léegi kenn ku nekk buy génne dina la jox 2 millions parce que ngeen déplacé wu wax Euh, moo commandant nga tëjal ma bunt bi su ko defee ñu commencé ñàkk leen yéen ñi nga xam ne yéen a njëkk ak ñi nga xam ne ñooy bàjjanu gox yi ngeen may ma tuuti yéen tëjal bunt bi foofu pour kenn bañ a génn su ko defee yéen nga xam ne jot ngeen a ñàkku ngeen mën a ñëw may njëkk woo ki nga xam ne mooy présidente des bàjjanu gox kaay kaay soxna si nga taxaw ñu jël ñàkk bi parce que nous sommes en direct à la TFM la télévision qui fait la promotion pour la lutte contre le coronavirus ñëwul ñëwul tegal sa micro nga ñëw monsieur le président bàyyi ma ñëwal soxna si bàjjanu gox nga état yàgg na la fay xaalis te léegi ñu nga xam ne yéenay woo xale yi pour ñu gën a léegi président moo ne woo pour ngeen ñàkku démission na ci lan ñàkku fii mbaa nga ñàkku ci bunt bi bu la ci gënal ñaar la kay kay léegi bàjjanu gox yëpp nangu nañu te lii nga xam ne mooy ñàkk bi pa eh, eh, pa bul daw e pa e imam waa jàppal ma imam bi yow tamit ngeen e da nga daw d'accord bu mu leen ko defulee fii dina leen ko def ci biti imam yi nga xam ne nekk ci jàkka yi yooyu yéen moom doo leen génn parce que fi ngeen di toog imam yi nga xam ne nekk ci jàkk yi imam bu yaraax imam bu Géejawaay imam bu Dakar grand grand imam bu Dakar ñoom ñëpp tey ci guddi gi mun nañ bàyyi seen kër ñoom ñoo njëkk ñàkku pour joxe li nga xam ne mooy message yi mhm. et puis la war a demee parce que je pense que nag tamit il faut prendre des gens qui sont des gens exemplaires dans ce pays parce que yéen la fi yàlla teg sama jàng ci alxuraan soriwul waaye yàlla nee na lépp loo xam ne lu baax la mhm. na koy imaam yi di digle te lii dañu nekk ci xeexu mbas mi du ay caaxaan donc nag nañ ko waxtaanee rek te bañ ko def loo xam ne ay daw saful dangay ngay bësa mu génn saful gars yi dañuy wax rek mais lii moo gën a wóor saful kon tous les imam bu génn région de Dakar kenn du fi génn damay tëj région de Dakar imam yi bilaal yi maire yi ak ñi nga xam ne ñooy yëgle xibaar yi neex yi dañu leen di jàpp dans un premier temps waxat ñoom ñoom parce que affaire bi buñ ko defulee dañuy gaañ il faut ngeen nangu ko quand même et puis gars yi opposition bi nañu bàyyi sànni xeer yi ñuy def j'appelle Sonko c'est mon frère na ñëw mu jël ay prisam ñàkku dem ak keneen ak keneen je pense que loolu amul benn problème il faut qu'on sache que aussi que c'est pas affaire caaxaan du ay faux quand bu ah buñ ko jël di ko diaboliser ay ñàkk bi lii warul parce que moo gën a waru man di wax ak yéen nii man mi wax ak yéen nii man je suis prêt pare naa pour def ko ak suma njaboot kon buñ ko caaxaanee du affaire u caaxaan léegi nag moo tax may ñaan imam bu Dakar colonel tëjal ma buntu boobu et eh, pas eh, eh, imam imam lay daw tamit bu leen daw tamit lii du ay affaire caaxaan tamit quand même il faut respecter tamit bu dul dara xam nga ay nitu yàlla ngeen am na yoo xam ne kenn du ko caaxaanee quand e góor gi xoloot sa caay gi góor gi jàppal caay gi borom lon ko foofu su ko defee jot naa ndigal yu jóge ci kilifa diine yi ñoom nee nañu ànd nañ ci ñi nga xam ne mooy ñu fexe ba xale yi ñaxu c'est très important parce que ñax bi moo ñuy aar e maire e maire jàppal ma maire boobu keppal ma ko bu mu génn de bunt bi foofu su ko defee li nga xam ne moom laay lancé kon message mooy pour wane na sax man mii président Macky Sall pour donner le bon exemple man danaa ñàkku ba pare. léegi dañ koy commencé ci santé yi nga xam ne ñoom ñoo commencé sant yi commencé par lettre A ak ñi nga xam ne seen tur A la commencé donc moom lañ def programme de vaccination par alphabet képp ku tudd Amadou ak Ablaye ak mu commencé par A ñoom ñëpp Semi Abdou. ñoom ñëpp semaine bi dañuy commencer ñakku à partir de euh, vendredi bi jëm ba fin janvier ñi nga xam ne tamit ñoo sant a di aaw ñu sant aw ñu sant ba ñu sant kone ñu sant seen ñu sant sàll sàll yi ñoom ñëpp dañuy bokk ci même logique boobu ñu dem affaire bi saful et pas et pas góor taxaw yow tamit bàyyi li nga def mooy bu daw waaw ah, tamit paa yi tamit amul julli jàkkaarloo non non heure bi jotagul pour ngeen dem di julli quand même yéen ñëpp da ngeen ñàkk doo leen génne fii quand même jox la leen seen 2 millions ba pare boo leen génne dem waxee na ñàkk bi saful léegi nag xale yi nga xam ne ñooy jeunesse bi te yaakaar ne feebar bi ñoom ñoo sax ñoo koy jox seen ay yaay pour wal ne xale yi elles sont volontaires kaay kaay taxawal ni kaay nii dafal nii rek loolu du dara gëmal mooy pa li nga def waay ah tamit kilifa bu taxaw di la ñaq dafal ni yéen ay wàllu affaire bi xale yi feebar bi ci yéen lay jóge dem ci maire yi kaay nii mooy dafal nii mooy dugg nga ñëw mooy dugal dugal dugal yéen ay taxawal ci mbedd bi di yàlla maire yi feebar dugal fii nga noonu yéen xale yëpp lay tëj dootu leen gënati ci su ko defee kenn par kenn jàppal ma paa eh paa eh jàpp ma paa eh eh ana paa eh eh. eh, eh. am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen di bégal képp koo xam ne yaa ngi seetaan ñu fàttali ne Alaaji Malick Ndiaye moo nekkoon ci réalisation ba Daouda Gueye euh, moo nekk nag ci la nga xam ne nag moom mooy ca euh, li nga xam ne moom mooy euh, ca ingénieur son ba ñu ko ciy gërëm di am mbégte ko am Diop tamit ñu koy nuyu di ingénieur son bu mag moo xam ne tamit mu ngi fii ci Télé Futurs Médias di am mbégte ak contentement mbokk suba ñaari sant ñooy ñëw Gomis ak Mendy ñaari sant la yoo xam ne wax fa dëgg yàlla dama ciy junj léegi ñi sant Gomis ak ñi sant Mendy ay kal nañu diggante Njaay ak Jóob noonu la ñu mel waaye ñaari sant yoo xam ne suba dañ koy def spécialement ci vendredi bi waaye dama doon wax ñi sant Jaw xam nga ñi sant Jaw lu tax ñu ñu war leen a ragal dañoo xam ba pare na tekk ak ñoo am xam-xam dañoo xam ba pare na tekk nag te boo ñëwee di leen xamal dañuy mel ne ku xamul jëlee ci yow xam-xam ba pare balaa ngay dem ñu xamal na ne yow li nga doon wax xam nañ ko yo joxal la xam-xam soo amee professeur mu sant jaw jàpp ko ñaari loxo lu mu la jàngal dëgg la booy jënd ak kuy jaay jaw booy jënd demal ci ku sant jaw mu jaay la lu la jaay day ànd ak barke bu dee ceeb la ceeb ba la ka jaay ka jaw ba sa mooy gën a saf soo amee jabar bu sant jaw téye koog ñaari loxo te xam ne bi day sëy ba dee boole ko muñ boo déggee sàcceey boo ko jàppee du sant jaw da koy rus ak ñoo maanu ak a ñoo maanu te ragal yàlla ba pare nañ ñi sant jaw xam la moo tax seen affaire garaaw Jamil Ba xam ñi sant jaw lu tax seen affaire garaaw dafa mel ne dañ leen c'est obligatoire que nga judd rek foo nga dem jàngi alxuraan dañoo ragal yàlla waaw li li ci ëpp nag boo xoolee seen couleur de préférence weex la li ñuy sol weex dafa bëri ba pare dañoo maanu seen góor yi nag am yërmande ñu sant jaw seen góor ñi dañu am gis nga diggante boo dëkkee waalo war nga dëkk fii ci xur yi diggante bi nga sant jaw boo ñëwee fu amul dara sax fu amul dara dara nga toog fa tuuti rek ñoom yàlla dafa leen bind ak bayre ndax jaw am na ci benn saaba boo xam ne sax jaw la santoon dama koy fàttu Abdou Karim bi had Abdou Abdou Moutalib Abdou Moutalib Jawa Abdou Moutalib Jaw Abdou Moutalib Jaw ma nga ca Xureyshin waaw Xureyshin jaw la sant Abdou Moutalib Jaw kooku ci boppam dafa mokkal alxuraan avant muy ñëw gis nga ñi sant jaw bu ñuy jànga yow nga wokk ko ñoom classe da leen tricher mémoire mémoire d'éléphant macha allah seen jigéen ñi yaru nañu seen góor yu baax ba pare nag ku sant jaw nga tasante ak moom suba teel bul wàññeeku de jox ko loxo xuloo ak ku sant jaw sax da am barke <laughs> bu la tooñul Ablaye Jaw ngi ni xoolal Père Laay Jaw ñu jàng jàpp ko ku ñu nuyu duñ la fàtte am ci xarit mooy am nga xarit goo xam ne boo amee xarit bu sant jaw moom ci ay tiyaawam sax mënu la yóbbaale àjjana ndax baax maa xam ni sant jaw lii nag bu ñu ko déggee ñoom balaa ñu tëdd di gis ñu sant jaw ñu réussir ñu ñu ñu réagir waaye ñu sant Samb moom <laughs> ba léegi dama leen dégg mbokk yi. Idrissa Seck nañu seeti kon suba ñaari sant yi ñooy génn Mendy ak ak ak ak Gomis ñu seeti euh, Idrissa Seck ci fii mu jëm ak lan moo ko yóbbu. <laughs> tey moom xam naa ne alxames la <laughs> waaw waaw xaaral ma yëngal waay bisimilah <laughs> maa ngi lekk sama bopp allo waaw mboro <laughs> man la soow <laughs> waa ngi nii <laughs> waaw ci loo nekk nag dégg naa la démb ba programme vaccination bi ni nga ko waxee baax na de laa ilaaha illallaah dara nekku ci waa xam nga man léegi liggéey bi ma waroon def ci ci benn at ci laa ko def ci weer ndax namoon liggéey waaw mboro tey fi ma la dugal tey moo xamee fi ma la dugal maa la fonk maa la fonk laaj ma fan laa la dugal si sama biir poos fii laa <laughs> maa ngi nii <laughs> waaw xoolal maag yow dagg rek <laughs> waaw waaw waaw waaw te xam nga mburu tey mburu bu nooy laa génne bu nooy bu saf suukar waaw waaw dañuy ponse mbaa yëgoo ko <laughs> pee oolee <laughs> maa ngi yow depuis xale <laughs> ay ay mboro bëgguma sax nga ruus billaay wallaay waaw wallaay wallaay ey ànd boole rek naan xam nga ne yaag diwtiir mu leen ànd sonko diwtiir la ñànkatang la mën a àndal moom ñoom Abdou Mbaye yooyu laay waa man a soow <laughs> boo gisee tey li ma sañsa <laughs> waaw waaw waaw yuut naa <laughs> ko ko waaw waaw mm. Mm. <laughs> waaw ànd boole lekk rek waaw waaw waaw mburu waaw waaw waaw waaw hmm? ànd bi na kay xibaar bu neex mburu bàyyi li ngay wax waaye yow tamit mburu waay mburu bàyyi li ngay wax waaye yow tamit mburu yow kenn du ko wax waay waaye mburu bàyyi li ngay wax loolu mburu li ngay wax neex na de oh. ay waay ay waay mburu man la laa la war a fay mburu gis nga dama la jaxase ak soow rek nga jox ma xibaar bi kañ lay doon tamit loolu mburu te taay da nga manqué nag <laughs> waaw da nga manqué fan yi démb ba ma la gisee nga taxaw ci télé bi da nga sañse waaw ay mburu ay mburu mburu bàyyi li ngay def mburu Guro bëgg naa la ta yàlla tax de ay xaaral ma gën a lekkaat sax li xibaar bii dafa neex ah waaw waa kay <laughs> ah ah Guro hmm. yaa waaye <laughs> ah? ah. ah? waaye loolu kañ lay am kañ. ay waay ay waay ay waay ay mburu mburu yàlla na la yàlla fay mburu yaa wax lii <laughs> waaye man soo awatuma sa fay de nga kañ kañ balaa weer bi dee kon li ma nar a <laughs> waaw mburu bàyyi li ngay def waaye mburu mburu yow la mburu mburu est-ce que xam nga mburu yow yàlla lay fay mburu caaxaanoo xibaar bi kañ nga koy joxe ay waay mburu mburu loolu rëy na de billaay caaxaanoo kat ku la bàyyi nga waat nga ne journal télévisé kañ suba sa diggante yàlla ay mburu ay mburu